di leen tabagal di wax seen wàccuwaay di leen baalu àq di leen baal àq ci tabaski bi ñu wees ñaan nañu yàlla boole baal ah tey jii nag dama leen di indil histoire min aghrabil xikaayaat maanaam ci histoire yi gën a étrange te muy histoire boo xam ne c'est vrai boo xam ne dëgg la mu ngi xewoon Égypte ñuy wax ne defkat lu baax du réer mukk maanaam faalatal xeyr aw faalil xeyr لا يخسر ابدا او فاعل الخير لا يضيع فعله كم نين كاي واخ رانتي فرانسي لو بيان في نسبير جامي كي بن سخنا لا وون بو دك تي بن فيلاج تي بافون ديجيبت يالا ماي كو نك دارا تيل نا نياك واي جورامي نياك فريرامي سسو تي كين mu am ci terrain bu ko ay parents bàyyi loon mu def ko benn kuux kuux boo koy dégg mooy doon moo nekk kaban comme ñu koy wax ci français mu nekk ca catu dëkk ba ndax li ñuy wax ku xam ku amul rek dañ lay xeet bu jógee quelque euh, kii ginaar yi nga xam ne moom lay yar ci lay jël nen yi jël ci dem marché ba jaay jënd lu mu togg bu njëmee lekk viem daal ça se composé wala bopp mi ngi doon nekk ci anam boobu anam bu basit anam bu oyof mu di ko def di ko def ba benn jour ci guddi muy ñëw di ñibbisi daal di gis benn muus bu weex tal tal tal tal tal nee li ko gën a attiré ci buntu néegam mu dugg ci kër gi de dugg ci buntu néegam nee na weexaay bi dafa doy waar ndax li ñuy wax rek ba yaatu noir maanaam bay weex bu bu weex tàll bu boo ko gis rek sopp ko ah mu de waa man muus mi lan lay def fii sama bunt bi nee na mu sësu ci bunt bi di ñeew rek di ko xool nee na mu ne kii dafa mel ni dama ko dafa xiif wala dafa sonn mu mais bi mu ko xoolaatee bu baax mu ne kii dafa mel ni dafa ëmb comme yërmande dañ ko di laaj suñu borom dafa bëgg ko yërëm loo gis surtout mala nga yërëm ko mu daal di ubbi bunt bi rek muus mi daal di dugg te boobu tangu sedd la mu dugg ko daal di dugg defar togg tal talam, togg reram, tal eh, cheminée bi ñoom dañu am jaru cheminée bo xam bu seddee ci ñi nga xam ba baadoole amuñu chauffage dañu jël ay mat daal di koy xamb neeg bi di nugg nee na mu daal di limu mu defaroon bu mu defaroon dal ci jox ko mus mi muus mi nan di naan ba biram fess mu daal di eh, tëdd nelaw ci ci suufu ci suufu matelas bi noonu nee na ba bër set mu xëy defalal ko mu lekk daal di ko fay bàyyi nee na mus bi génn mu bàyyi ko mu awee foofu di taxawàllu di doxantu ci buntu ci ci biir këram mu dem marché jaay ba ngoon mu ñëwaat fekkaat mus bi mu tëdd noonu nee na voisin yi nga xam ne jege woon nañ ko kenn ki ñu doon dugg ci këram ne ko ñun sa mus bi rafetaay bi daf ñoo jaaxal bi weexaay ñun musuñu gis dafa weex tal muus bi nek fa muus bi nek fa muus bi nek fa ba ay fan neena ben jour mi ngi teud ci goudi gi neena ay 2h du matin 3h mu deg mu ngi nelaw mais mu men deg ay wax neena mu deglu ci bir nelaw yi de mu ngi men na kuy nelaw xamna naa système mu jinne yi la rek dañ ko defon mu men ni kuy nelaw baña yew ndax bala muy xam li ñi wax waye neena mu deglu bax deg ñaari li ñi wax wax bu leer nañ ku jigéen nee na baatu ku jigéen ku mag ak baatu ku jigéen ku ndaw nee na mu ne ko diw lan moo la teree dellu si mu ne ko duma dellu si mu ne ko sa jëkkër ji wër naa lam yëpp fu nekk wër na ko pour gis la ndax yaa ngi ëmb toll ci diggante ñun wër nañu fu ñu xam ci àddina bi ñu benn ifrit laataa wax ne fii nga nekk lu nekk daj nañ ko ndax xool nga am nga fi ñaata fan mun ñu fexe ba gis la sa jëkkër regretté na na nee na li mu la defoon yépp baal baa mi ngi lay baalu nga bàyyi ko nga dellusi ndax mënut a dund ndax yow mu na ko du ma dellu si de dootuma dellu si te mukk c'est fini maag moom mu ne ko déedéet baal ko moom erreur bi mu defoon yépp nee na génn na ci mu ne duma ko baale nee na ma ne nii gestu nee na mu mel ni dafa am lu ne mes nee na ma xool muus bi mi ngi tëdd ci suufu uh, matt mi ma taaloon ah nee na ma ne waaw man lii li may dégg lan la lii ndax waxu nit la dëggantaan wala lan la mais nee na ah ma defe ne rêve la rek nee man ma defe ne gént la rek nee ma tëddaat mu tëdd nee bi mu tëddaatee euh, ba bër set mu joxati muus mi mu lekk mu dem marché jaayi ay ginaaram ak i nenam ak quelques yi légumes yi mu doon bay foofu ci ci ci biir këram ah muus mi génnaat mu tëdd ca wetu suufu garab ga nee ma demaat ba dellusi si même mu dugg tëdd ci wetu li bi ma jox ko mu lek mu nelaw ñu ñu togaati ba 2 heures du matin encore nee ma déggaat wax ci nee ko yaay ak doom mu ne ko diw man may sa yaay ñew na ba fi di la wër te dañ ma mandaté sa papa ak sa jëkkeur sa jëkkeur regretté lepp la def ci mu ne ko duma dellu ci mu ne ko dellu ci mu ne ko duma dellu ci nee mané ma ne nii nee na yëf selaw ma gis ko mu tëdd ah ma li ñaar la de bu ñettee nag dinaa xam ne lii dëgg la yàlla def ci su bëgga naka la dem rek muus bi wasin ci ginnaaw wasin la ko ñeenti doomu muus yu weex tal tal tal tal comme seeni comme seeni comme seeni comme seen yaay ku leen gis rek bëgg leen nee na mu ñëw tatagal leen daal leen defal benn pañe ñu nekk ci biir mu jox yaay ji meew jox ko lépp mu naan nee na mu tëddaat ba bër set dedet mu tëddaat ba goudi encore bi yon 2h du matin 3h nena nak ciow coow la bëri lool nee ma deg ñaari batu gor dellu ñaari batu jigen nena gor gu mak ak ku melni xale bu gor ak yaay ji degon ak ku jigen ki nena papa ji ne ko assurerel na la di nga togal sa place comme reine assurerel na la dotu la defati muklu la nakari mi ngi ni ya ko taxajuk a mi ngi ni man ñun nak duñ la fi bayyi tay da ngay dem mu ne dem ma fenn papa ji ne ko man de di nga ma ci rus boo ko rusul sa yaay ñëw na ñaari yoon nga tey mais tey di nga dem bu soobee yàlla nee na mu daal ne assuré na ne dootuma def dara mu ne ko dootuma la defati lenn loolu naqar ci àddina ndax tuuti ma dof te nga dem maa ngi nii nga am ak man ay doom yaa ngi ni doom yaa ngi nii rafet ba bëgg a dee muy ñaari muus yu góor ak ñaari muus yu jigéen mu naa ne waa dinaa dellu waaye lu mel noonu boo ko defee dootuma gisati ci àddina mu ne waat naa ci yàlla kenn du la defati dara lu mat mën a defati lu metti te kenn du la defati dara ci pale bi incha allah nee na loolu yëpp maa ngi koy dégg mu mel ni reef la ah nee na ma ne nii nee na déggatuma benn wax fa mu tëdd fa mu tëdd mu ngi nelaw ak doom yi ma ne man de lii jaaxal na ma ma daal di xëy defal ko mun naa supp defal ko meew daal di dem. liggéey dem ca marché ba jaay ay nenam ak ginaaram waaye nee na surprise bi nee na maa ngi yàkkamti ñëw ne naa teel a ñëw gën a teel a ñëw ndeysaan ndax doom yi ma gën ko jox lu mu lekk ndax xëy na li mu lekk nee na ma ñëw gisatuma muus ah, ma ne waaw man sama muus mii gisatuma ko de fan la dem gisuma ko gisatuma doom yi ma laaj voisinage yi gisu leen sama muus mu nekkoon fi nga xam ne fi ñëpp miinoon nañ ko mujj gi ndax ni mu rafet ak weexaay bi niñ ko bëggee ñoom gis ñu leen de ah mu ne lii de dox na waar mu di tëdd nelaw nak la tëdd même heure ba mu gis ku jigen ci gënt de nee na mu ne ko man may mous mi fi nekkoon nek une princesse wala une reine jinn rafet rafetai bu kenn musul ay ne ko man suna yalla tudd ma ngi dëkk ci alam jinn nangam ñun ñu ngi dëkk ci bir géej gi dama ak sama borom kër ma ñew mais nga teral ma jàppale ma teranga bobu nak dina la ko fay bes bo yeewoo di nga gis ne am mbuss buma tek ci sa bop la mbuss mi lepp alal bo xamne ñu koy ut muy jama, muy imrut muy alal yep yo xamne ba say descendance ñu ñakati dara man maa la ko defal ndax lu bax li nga ma defal rek dal di disparaître ak ah, neena mu jóg neena na bi dal di xol làmp tempête yooyu comme amul daal di xool gis benn mbuus mbuus bu ñu teg ci bopp lal bi ci taabul bu ne foofu rekk mu ne kon lii du du gént lii dëgg la mu naka la daal di jël mbuus mi daal di koy sotti mu nekk ay diamant ay émeraude mu daal di jóg jàpp ñaari rakk daal di sant suñu borom daal ne ah lii de xéewal la man day xaw ma woon ndekete muus mii ma dimbali ndekete jinne la woon bu jigéen bu meroon ak jëkkëram ma dimbali ko ba mu am fi doom ma toppatoo ko loolu la ma yàlla fayee ci la daal di xëy dem ca dëkk ba dël ci quelque pierre wecceet ko muy alal judul jeex mu ñëw pàkk boobu ko woy juróom yi bàyyi woon mu tabax ko château boo xam ne kenn mu la wax ka gën a am daraja ca dëkk ba jël doomam may ko ko ndax du mag naa war a nekk ay 30 ans nekk orpheline boo xam ne amul sësul ci kenn waaw histoire soxna soosu di bu say na la tudd nee nañ noonu la ko yàlla dimbalee mu am àddinaam am àllaaxiraam say doomu borom alal boobu gënoon a bëri alal ca dëkk ba ndax moom it nekk na borom alal ay histoire njabootam ak i descendance am ba léegi nee nañ mi ngi Égypte ñi ko xam ba xam fa ñu dëkk te ba léegi alal jooju moo topp ba topp ay yàlla moom gën na àddina mais ay doomam ak i sëtam yëpp ñu ngi dund loolu dañuy wan rek lu baax nit ku koy def def ko ngir yàlla même nga xam ne animal boo xam ne for nga gis nga ko mu xiif defal ko lu baax ndax yàlla nee na moom mooy fay def katu lu baax yi yejzillahu almuhsiniina nee na képp koo xam ne dangay def lu baax yàlla dina la ko fay waaw bii lañ leen indiloon loon rek ci ahadis gariba maanaam ci ci ay axbaar wala ay histoire yoo xam ne étrange la mais yu firnde lañ ci am ne passé la nekk dëgg ñu ngi leen di jox daje ba ci temps yi mère di ustada Xadijatu Njaay maa ngi leen di jox daje ba ci fan yi insha allah wa axir daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajmain amin asalaamu aleykum wa rahmatullah